ginnaaw bi Cheikh Abdou Mbacké Bari Dooli génnee ci dimanche jile yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2022 jàkkaarloog taskat xibaar yi yëkkati na fay kaddu jëmale ko ci ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ci dëkk bu sell bii di Touba Mbacké nag ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom it ci altine jile feelu nañ ko ci point de presse boo xam ne doon nañ ko amal kaddu yi la ñu fa béy. salaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli jënd bi ñu ngi sant Serigne Touba bu baax di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu ko fi loolu tam yër di ko ñaanal kilifa diine ci Sénégal yëpp xëy na point de point de presse bi war nañ ko woote wax ci leneen mooy sant waa département bi ci wóolu gi ñu wóolu ba yebal ñu assemblée nationale ñu am fa taxawaay bu rafet waaye di ñaan jàmm pexeem yàlla dogalam ndax biñ ñëwee ba léegi ñu ngi woon ci ay tournée muy man muy honorable député soxna Fatma Mbodj muy honorable député Abdou Mbacke Ndaw di remercier militants yi ak yenn dese yi nga xam ne amoon nañu dem fa jàll ci seen borom ak nga xam ne doon nañu ñu dem fa di leen seeti mais ku ci nekk gis na démb benn sortie médiatique bu am suñ benn collègue député wax fa ay wax wax yoo xamante ni méngoo na sore na ak dëgg lool lool lool ñu ñëwoon pour indi ci ay leeral ndax yaakaar naa du moom moo tax ñuy tontu sax du li mu wax moo tax ñuy tontu mais leeral sénégalais yi rek ndax li ëpp ci population Touba bi yaakaar naa ni ko Babacar Sarr waxee rek fu nekk jot nañ fa appel ñuy sant suñu taxawaay di gërëm te jàpp naa loolu la ñu waroon def bu démb tey noonu la ñu ko defewaat fi may tàmbalee rek mooy ci li mu njëkk a wax ne du nangoo nekk commission di woote budget bu ñëwee plénière boycott budget bi loolu du ko def ba pare teg ci ne waaye yeewu askan li ëpp ci ñoom ñu nekkee biir commission dañ naan woote budget bi bi ñëwee plénière woote wuñ budget bi mel ne loolu lënt na xel Sénégal yu bëri bëri surtout waa Touba mooy xamal ne commission du député yëpp ñu am droit voté loolu mat a leeral la ndax commission 45 député ñoo ciy bokk 45 député yi pouvoir bi da ciy am opposition bi am ci ñaari yëpp boo jëlee député yeewu askan yi bokk commission finance douze députés ci lay toll kon douze députés yi ñoo am droit voté te douze députés yi du ma ne ñëpp voté wuñ mais li ëpp ci ñoom bi ñu eggee commission voté wuñ te muy man muy Abdou Mbacke Ndaw muy Soxna Fatma Mbodj ñun ñett boo ñu jëlee kenn moo ci bokk commission finance muy Abdou Mbacke Ndaw te Abdou Mbacke Ndaw durant commission bi am na yu mu doon voté de mais voté wul yëpp te yi mu voté day wax ne ministre bi bu mu yeneen tontu yu leer bu ñu eggee maraton bétisaire bi ma xool boo xam a leer la beneen bi bi ñëwee plénière ñun voté wuñ ñàkk ñoo voté ngir ay conseils yu ñu jot suñu leader yi ndax suñu leader yi bi ñu dugalee ci suñu liste campagne ni bi ñu eggee assemblée nationale dañu ñoo bàyyi ak suñu coobare ñun ay magi jëmm lañ bu ñu jëlee biir Sénégal mu toll ci 6 000 milliards ci lu topp te topp na sax 6 000 milliards yi ëpp na ñu xool ne Touba mooy deuxième capitale ci Sénégal ci wàllu dëkkuwaayu doomu aadama boo jëlee bit bi yëpp li ci Touba di bénéfice au motif 100 milliards ministère bu fa jaar interpellé nañ la ci bu ñu la interpellé doo ñu indi ay tontu danga naan loolu boolewuñ ko ci budget 2023 bi dinañ ko prévoir bi bi ñu fi jaar yëpp xool ne lii du bokkut ak suñu bëgg-bëgg ak bokkut li wax ko mais di wax rek ne aw fen moom du bijaaw surtout booy fenal koo xamante ne yar na làmmiñam boo waxee midi une heure génn tontu la beneen bi ci toppaat tamit génn na Sénégal yëpp dégg ko mu bi muy dem Qatar assemblée nationale ñoo pour mu superviser coupe du monde bi mooy yëpp ne dëgg assemblée nationale benn nit la ñu wénoo kuñ naan Omar Sy ndax moo jiitu commission sport jeunesse moom bokkul commission sport bu demee tey jii Qatar seedaani coupe du monde bi xaritoo gum xaritoo ministre de sport ak xaritoo gum xaritoo waa pouvoir bi ñoo tax évité ko ñun ñuy xaritoo wutu waa pouvoir bi kenn évité wuñu Qatar te bu ñu évité wuñu Qatar tamit duñu dem ndax mënuñoo wootel tolle marathon budgétaire ministère yëpp dafa jaar département Mbacké bokk ci département Mbacké département yi Sénégal yi Macky Sall gën delloo gannaaw ndax ñun fàttaliku wuñu Mbacké gii de mooy lieu départemental bi benn yoon bu fi Macky Sall ñëwee def inigré dara kon ñun amuñu droit dem Qatar kon mooy xamal Sénégalais yi ne assemblée assemblée nationale yónni wu ko woon Qatar assemblée nationale kenn lañu yónni woon Qatar mooy Omar Sy moo jiite commission sport ak CNES bokk yeewi askan moom la assemblée nationale yónni moom la jox ordre de mission du génn benn ordre de mission boo xamante ni assemblée nationale ñoo ko yónni Qatar loolu du ko génn bu àdduna tukki loolu mën naa leeral bu demee Qatar xaritoogum xaritoog Yankhoba Diattara ak xaritoogum xaritoog waa Poids bi ñoo ko beneen bi ci am na beneen fournée bu ñuy wax CAP 21 xaw ma CAP commission boobu Fatma Mbow mii moo ci nekk euh, su ma jumul cap 21 Fatma Mbow mii moo fa nekk euh, moo fa nekk absent ca commission boobu mais bi ñuy yóbbu moom la ñu yóbbu ngir xaritoo gum xaritoo waa Poids bi encore une fois kon taxaw dignement représenté fa département Mbacké bu ñuy wax suñuy wax day feeñ ndax département bi ñoo ñu votel am na kenn ku ñu wootal ku nekk ngay am na kenn ku ñu wootal ku nekk Sadio Fatma Mbow mi interpellé na ministre infrastructure ci tëli Sadio bi tontu wu ko man ma interpellé ko ci tëli Bogo bi tontu beneen bi ci toppaat tamit ministre de la santé bi mu fu ñëwee interpellé nañu ko ci poste de santé Sadio bi gis nga bi mu lay tontu ba léegi bu la neexee génn lettre bi li mu la tontu ne la prévoir ñu bi budget 2024 xam dinañ ko a boole ca taxawaay bu mat sëkk keneen ku ñëw fii nag jàkkaarloog askan wi dana wax waxi neen kooku yow la engagé mais ñun engagé mais daal may xam ne buy wax na wax ak ñoo xamante ni yàlla dafa yàlla dafa tëj seen làmmiñ ñoo ñoo xamante ni yàlla mooy ne leen lamiñ boo fenee midi bu inaat jotee dinañuy wedd te li mu wax au début à la fin lépp ay kàcc la yoo xam ne dara du ko ci dëgg asalaamaaleykum wa rahmatulah loolu Sénégal yi ñoo koy siiti ndax mënuñu mënuñu mënuñu ne dañu laa voté lu mat 109000 voix ci département Mbacké ñu toll ci toll marathon bi ci nga ne ko fi ñu ñukk dem di seetaani coupe du monde ñu ne la lan moo tax nga def coupe du nga ne assemblée nationale moo ko fa yónni te assemblée nationale yónni ko loolu Sénégal yi ñoo koy siis ba xam war la wala leneen beneen bi ci toppaat tamit bu fekkoonte ni dañ ñoo yebal assemblée nationale pour ñuy voté budget bi yaakaar naa kon suñu liste bi duñ ko voté liste benn bokk yaakaar la ñuy voté ndax ñaari liste ñoo nekkoon ci département muy ñun ak waa benn bokk yaakaar kon bu ñu joxee 109000 voix yóbbu ñu assemblée nationale pour ñuy tàcc wa ilaa lu gouvernement bi wax ñu ne ko gonga dañu ñu fa yóbbu pour ñu contrôler action gouvernementale bi waaw xam nga xam nga loolu yi de day indi ay juwalo Ousmane Sonko tànn ko Ousmane Sonko tànn ko Ousmane Sonko ñi mu tànn muy man mi honorable député Soxna Fatou Mbodj Abdou Mbacké Ndaw ñoom ñoo bokk ci liste député Pastef yi mhm. moom intercoalition moo ko dugal ci coalition bi kon lu mu def dara lu ci engagé Pastef wala mu engagé su président Ousmane Sonko amul bu fekkee ne dafa am ñu mu war waaw wala Sénégal la war waaw wala Sénégal yi ñun dañu boycotté budget bi jël ay responsabilité boobu kon ñooñu la war mais ñun li mu def amuñ ci benn responsabilité te bettuñu ndax bëri na kër kilifa diine guñ dugg ci campagne ci élection leen lañu wax seen liste bi kenn ko nar a gàkkal di saaga kilifa diine muy Cheikh Abdou mais lan ngay doon ci li mu wax nag Ousmane Sonko na wax ak moom du ci bokk waaw comme ni ko Babacar Sarr waxee rek concert de casserole bi waaye Yewwi Askan Wi la concerné moom yoonam néewu ci kenn boole wu ko ci def nañ ko mu réussir lool te bokku ci woon te dinañ ko defaat tamit dina réussir lool te bokku ci may profito di wax ne président Ousmane Sonko woo na ma démb xamal Sénégalais yi nekk Touba Mbacké nañu warmal dëkk bu sell bi lépp luy xeetu mu ci bokk bis ba képp koo xam ne nga am yëg-yëgu def ko nga paas ñëw Mbacké defee si ko si loolu may profito xam ne du war ma ko mu warmal Touba moo tax mu def en tant que jëmmi jëmmi tudd président Ousmane Sonko di ko méngale ay saaga loolu mooy ñàkk xam président Ousmane Sonko ndax màggal 2018 xaw ma màggal 2019 2020 bi mu ñëwee siyaare si Muntaxa ba génn am na journaliste yu ko interpellé du ñàkk am ñu fi nekk fii bi ñu ko laajee li mu wax leer na képp kuy saaga kilifa diine yi bokkoo ci man boo boolee sa bopp Ousmane Sonko Ousmane Sonko boole ci boppam ndax moom lépp lu mu am diine moo la ko may di doon kil doon doomi kilifa diine yi taxut nekk kilifa diini ndax li ma mën a waat ci yàlla boo jëloon Cheikh Abdou jël Ousmane Sonko Ousmane Sonko gën a xam diine fuuf fukki junni yoon bu ñu doon tànn réew mi ci koo xamante ni moo gën a mokkal alxuraan ñoom ñaar boo leen tàjje Ousmane ngay tànn bu ñu doon tànn a mokkal kon doon doomi kilifa diine ak doon nit diine du benn kon nañ bàyyi sisement de valeur li ma koy wax nag mooy ñun ñëpp buñ bëggee politique waajuram bokk na ci tax ñu bëgg politique muy suñu baara doy politique na ba bàyyi politique kenn mosu koo dégg mu yëkkate kàddu gu ñaaw wax ko kenn te bi muy bëgg nekk député bëgg bokk ci liste Yewwi Askan Wi ñëw na ko Ousmane Sonko du benn du ñaar jooy sax def na ko ngir dugg ci liste bi te ñun xam nañ ci lu wér a wér a wér màggalu Daaru Muxti gi jàll bu ma man boog dawuma ko gis muy màggal si

doom lañ ko fay def jarbaat lañ ko fay def sët lañ ko fay def ñoom ñëpp ku ci nekk di ko wàccee di kaamil ñii di yëkkati ay mbubb di ko jox ñii di ko boole ci seen doomi bopp yi kon jàpp naa ne jéem a jaboli si Ousmane Sonko ak waa Touba moom ten perte la comme ni ko Babacar Sarr wax ñu ko ëpp crédibilité def nañ ko jàll ñu ko ëpp image def nañ ko jàll ñu ko ëpp dayoo ci dëkk bi def nañ ko jàll amuñ ci benn taxawaay ndax Sénégal yi waa Touba génn na xam bu ñëw wax waxuñu waa Touba ñun ñi ñuy waxal mooy ñu ko seen muy sol grand bu rëy di sol koppateem te xamuñ ko mais bu dee Touba gi moom xam nañ ko bu baax a baax a baax xam nañ ne mu tekkiwul dara ci politique ndax élection locale yi moo jiitu élection locale yi moom boo jëlee ay nombre de femmes dëgg-dëgg ay 117 lay toll ay 300 ndax bu ñu fàtte ne boo gisee tey jii mu amoon benn dayo bi dafa àndoon ak candidat sortant maire Mbàkke ba moo tax tey jii mu mënoon jël troisième position ci élection locale quatrième position mais kon ndaara teg la ci législative def la député nga génn di ko saaga loolu moom gis nañ ñu ko defoon fan lañ mujj ak moom ndax élection locale yi am na ku ñu jiitaloon mu génne moom la nit ñi fal biñ ko defee gis nga 109000 voix lañ am toog fii nekk honorable député te présidentielle 2024 xam nga xam nga procuration bi amul ko joxoon loolu ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo ci presse bi dañu ko yëgandoo ndax keroog bi ñu ne Sëñ Abdou Bara Dolly dafa def procuration ñun ñi ñoo jóg interpellé président assemblée nationale bi ne ko kan la def ci kan la def procuration ci kan la ko def hmm. mu ne ci Omar Youm daal di jóg ne ci man la ko def président assemblée nationale liir ko ne ko ci Omar la ko def xam nga loolu ñun ñëpp ñoo ko yëgaloo ndax ñun xamuñu woon ci kan la def procuration beneen bi ci toppaat tamit nee na fàtte woon naa ko ñun ñëpp teew nañ commission man maa ngi foon Faat maa ngi foon Abdou Bakane Ndaw maa ngi foon mu ne ma woote sa bit sa ndax yaa ko voté ndax yaa ma jàppaloo hmm. yabal lu tolloog 30 soldats ñu ñëw sama biir kër jàpp ma Antoine sax dana ko waxoo dëgg. xam nga ne jàpp 30 30 xëjuñ ci yoon ba dina jàpp. loolu dëgg noonu la ko Antoine tontu ñun ñu nekkoon yooyu mu ne ko du ma woote sa bitsi ndax yaa ma tëj lu wër biñ ñëwee plénière biñ ñëwee biñ ñëwee ci marathon bitsi dafa woote bitsi Ismaïla Madior Fall kon changement de situation yooyu ñun doole ñu ko laaj moom ngeen koy laaj ñun fañ nekkoon fa lañ nekk mooy wutiwuñ benn budget ministère bu fa jaar te loolu par principe lañ ko defee ndax dañ ne budget bu tenir en compte département Mbacké duñ ko wote te bu déebu na tey noonu lañ koy boo xamante ni ginnaaw Dakar mooy département bi ëpp ay nit ci Sénégal lu jëm nii ci Touba mi ngi dox normal tëli yëpp yàqu nañ mm-hmm. ministre Mansour Faye bi ñu ko interpellé ci entretien routier Touba lan nga ci xalaat tontuwul ba keroog interpellé naa ministre de finance ne ko seetlu nañ question yi interpellé Marie Xames bi mu fa ñëw ñu interpellé ko ci ci ci ci poste de santé Sadio bi centre de santé bi tontuwul kon ñun question yooyu nga nuyu askanu Sénégal yëpp di au niveau et international di nuyu waa département de Mbacké honorable député Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly bi ñu liggéey ci commission yi daanaka cinq six jours da dem voyage li gënoon a métti ci commission yi fekkewu te commission yi commission technique la woon ay document de référence la danga koy liir comprendre ko te loo lu fekkente yow mënoo liir doo comprendre amuloo looy wax ci yenn documents yi bi ma xoolee sama agenda ci biir euh, commission des finance bi 85 questions la posé 85 questions yi boo xoolee daanaka 29 ou 30 réponses laa ci te c'était des questions ponctuelles yu jëm ci wàllu mbooleem ministères yi mu concerné ci biir Sénégal mais particulièrement département de Mbacké loolu ci biir euh, commission des finance bi am na ci ministères yoo xamante ni li ñu waxoon am na quelques yu ñu ci voté mais lu ci ëpp voté wuñ ko te vote boobu doonul dara lu dul approuvé ne kii li mu proposé donc ñun ndax joxe nañ amendement yi sous réserve que ñuy dem plénière la ci nekkit ñun li gënoon a tax ñun ñëpp à l'unanimité ñun les membres de l'opposition ñu ñu doon may benn bunt rek pour joxe ay input après dem plénière mooy jotuñu woon déjà la loi de réglement te la loi de réglement mooy wone xaalis bi nga xamante ni en 2021 état du Sénégal budgétisé woon nañ ko nan lañ ko exécuté loolu faw ñun ñu xam ko deuxièmement bi ñuy def débat d'orientation budgétaire yi di def ay arbitrage ñun fekkuñu fa donc c'est que ñun fekkwuñ loi euh, euh, débat d'orientation budgétaire yi fekkewu jotuñu loi de règlement kon amuñu aucun élément yu ñuy permettre ñu mën a ne budget bi c'est un budget sincère d'un budget de 600 cent 411 milliards de francs fa yoo xam dañ ko orienté ci ay secteurs yoo xamante ni ñun jàpp nañ ne doonul secteurs yi gën a priorité pour Sénégal moo tax j'avais di waxoon naa le ministre des finances ne ko man gëwma un budget social budget solution et social ndax dana budget social la budget solution ma ne ko man gëwma loolu ñun li ñu gëm mooy investir ci li nga xamante ni mooy les secteurs de croissance porteurs de croissance muy l' muy l' muy li nga xam ne la pêche muy la sécurité muy secteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy tax am réew mën a def rek mais quant jël alali réew mi di ko perfuser nit ñi pour que seen xel dal ñu kontaan nga mën a def li nga def ñun d' accord ci loolu. xoolal rek ci wàllu sécurité xoolal Touba ak Mbacké insécurité bi fi nekk moo tax. décision yi nga xamante ni xalif général bëgg na ko pour ñu gën a sécuriser kooku aussi ñu ngi interpeller le chef de l'État d'ailleurs démb bi nga xamante ni jóge naa ci xalif général des Mourides dama dem ci guddi gi Dakar dajeeg ñi ma war a dajeel pour que wàllu sécurité ci wàllu Touba ak Mbacké njiiti réew mi def ci kemtalaay kàttanam pour mën a sécuriser askan déjà le rek c'est un projet ponctuel kenn mënatul jóg kenn mënatul génn Touba ni muy xëccee mbooloo ñu fiy def si lu baax noonu la ñuy def ko te safaan yi jóge moo tax nag ñi xaar ba fekk une semaine ñu xool cette réaction ne serait-ce que ça leneen li ci des mooy honorable député sëriñ Abdou Mbacké Bara Dolly ci biir plénière itamit dafa voyagé dem xataar seetaani football mm-hmm. bàyyi ñu fa ñuy xëy ku mel ne sëñ Cheikh Thioro Mbacke ku mel ne soxna Fatma Mbodj ku mel ne soxna Astou Mbacke di mag mais terewul dafa ñëw installé wu à Dakar nekk euh, ci hôtel député bu xëyee ñëw fa lay nekk ba guddi nga xamante ni bi plénière yi commencé dafa jël deux jours rek mu jël volam dem fa lañ nekk di liggéey suba ngoon ba bëccëg bañ ne suba la ñuy clôturer la door a ñëw kon nag wax dëgg yàlla liggéey nañu ci campagne bi mu metti lool mu ne ci jafe-jafe sëñ Cheikh Coro fa ne woon soxna Fatma Mbooj soxna Astu Mbàkke ak gor yu baax yi ñu àndal ñuy xëy suba ngoon guddeeg bëcc di def seen alal ak seen coono seen lépp ba mu génn te it dañ koo ji ngor ndax ba ñuy samp comité électoral bi nekku fi mm-hmm. mënoon nañ ko cee bañ a boole mais dañ ko réserver place ne ko ne place bii kat moom lañ ko jagleel su génnee na ko jël su génnut tamit ñu xam ne jagle nañ ko ñu def ko ñëpp ñaanandoo ci barke Serigne Touba yàlla dimbala ñu teguñ ci lu ma une semaine ñu libéré ko mu ñëw jël place hmm. kon ñun ay gor lañu ñoo xam ne dañu ko jiiteraange àddina nag li am solo mooy nit bu fekkent ni da nga ànd ak say nawle ngeen ànd ci jaam ñu ji la teraanga iir la mënoo dara campagne bi wane na ko da génn amoo foo jëm bi nga ñëw toog chaque heure nga laaj gaay fu ngeen ne soo mënee dangay dem sur le kon daal loolu mooy ci gàttal ci conclusion li ma ci bëggoon a ak maanaam moom moom moom da cee xamul dara xamul ci dara te boo ko ci laajoon loolu ci yan rubrique budgétaire nekk xamu ko soo ko laaj yan ministère moo la xamu ko fekkewu ko it c'est ça boo xoolee ay c'est question questions am ñett ñoo ko soulevé sëñ Cheikh Thioro Mbacké moo fa défendre route bi nga xam ne jëm na Taïf saajo défendre ci poste de santé bi soxna Fatma Mbodj défendre ko man mii ma défendre ko donc ñun ñetti ñi ñoo yoroon portage yu jafe-jafe yi département de Mbacké ndax bu dee commission fekkewu ko ñeenti fan la fa def dem voyager ca COP 21 ba bu dee plénière ñetti fan la fa def fekkewu ci dara kon léegi loo fekkewul noo koy défendre c'est ça réalité des choses asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ah, bi ñu sante suñu borom julli si yonenteem di sant Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg loolu te ànd ak wér. waa di indi ay ay leeral rek ci Cheikh du baara Dolly li nga xamante ne wax na ko ci wàllu ne mooy gañe Touba di ko wax ne ko moom ba mu nekkee ci biir fi nga xamante ne mooy fa mu waxee woon wax ju ñaaw ja. président Macky Sall ba mu dugal ko foofu ba mu waxee loolu wax ju ñaaw ji mu nga xam bi moom la waxoon ba président Macky Sall dugal ko foofu bañ ko dugalee foofu digge yi nga xamante ne defoon na ko fii ci département bi yëpp digge yi mu fi defoon yëpp ci département bi lu ci mel ni ñu mën a citer fële ci euh, ci Sadio digge woon na fa ay machine wal benn bu ci nekk rek mooy woon ci valeur 400 000 francs te loolu yëpp bu mu nekkee fi nga xamante ne fa la ko Macky Sall dugaloon ngir wax ju ñaaw ji nga xamante ne moom la doon moom la waxoon moom la ko waxoon donc digge yooyu yëpp honorable député yi ñoo ko fa def sëñ Cheikh Thioro bi ñu ko waxee digge yooyu si la jógee def ci ay ay ay ay ay ay ay démarche am ba li nga xamante ne mooy digge yëpp mu def ko comité électoral bi nga xamante ne moom la honorable député Cheikh Abdou Bakke wax mooy bañ ko defee ba pare moom dañ ko dañ ko ne duñ ko fi kii dañ ko duñ ko fi teggi dañuy bàyyi ba mu ñëw ñu jébbal liggéey bi ci ci ci loxoom. ba mu ñëwee tamit daf ñoo buggoon yóbbu ci ay ralliement yoo xamante ne mooy comme ni ñu ko yàgg def rek comme li muy wax nii ne moom mooy dooni ji euh, président de la république bi 2024 mooy gagné mooy mooy dooni président de la république comme yooyu rek ndax maanaam ndax gi muy nax boppam boobu moom la ko nit ñi doon nax muy dem ci ay ralliement ñu ne ko ñun. du ñu dem di ànd ci ay ralliement yooyu dañuy dem liggéey ba ñu waree dem liggéey du benn dërëm du cinq francs boo xamante ne jox nañu ko au contraire man mi nga xamante ne maa jiite woon caravane bi daan na ñëw ci man ne ma solalal diw euh, gasoil li may leeral foofu rek muy muy muy ñun mosuñoo jox benn dërëm ñun ñoo wutoon suñuy oto loué suñuy oto wut suñuy carburant wut suñu wut suñu machine machine baa ngi fii ci bureau bi à mille francs bi ci di ci wut ay espèces humaines pour wane ne euh, wàllu ak yeewi ñoo ànd président Ousmane Sonko ak président Abdoulaye Wade ñoom ñoo ànd loolu mooy liggéey bu ñu doon def di génne mille espèces humaines par jour di ko génne. beneen business ngir wane na moom li muy wax na mooy gagné moom daf ñu doon topp saa yu xëyee dafa ñu ne fan ngeen nekk ñu ne ko ñoo ngi bërëb diw ba ñuy dem. Euh, kayra mbay ay kayra ndaw mayal fu ñu dem fa la ñuy taxaw añ fépp fi nga xamante ne fa lañ doon defee pause suñu xoolaatee dinañ xam ne responsable Pastef fii lañu fa doon dem bu ñuy dem mayal Mohamed Ndiaye lañ fa fekk këram la ñu dal loolu mooy lay wan ne kon ci fief Ousmane Sonko lañ dem bu ñuy dem euh, mbëgërën suñu responsable jeunes yi Madiaw Faye fu këram la ñu dal kon da lay wan ne foofu tamit la même chose bu ñuy dem Touba Ndiarème ñoom Babacar Gueye ñoom euh, soxna Awa ak ñooñu noonu ñooñu lañ fa fekk foofu la ñu yendu bu ñuy dem Madiana wër Madiana Cheikh Moussa Faye lañ fa fekk mën naa ko sije feneen ak feneen bi ñu dem Daaru Minam kër soxna Fatma Mbodj ak baay jii liggéey mii lañu dal ba ba ñuy ñëw Mbàkke fépp kon moom amul fenn foo xamante ne yóbbu nañu fa ngir nitam au contraire daf ñu doon tardel ndax dañu doon woo nañu nañu dem ci ay ralliement fu ñu dem ñu mu joxe fa ay deux cent mille ak trois cent mille te ñun jox ñu benn dërëm ñooñu su leen ko joxee suba dañuy xëyaat gisaat leen ñooñu ñu demaat amaat beneen leader boo xamante ne dañ koy dañ koy recevoiraat ñu encaissé waat kon moom ay dóorkat la doon seeti ñun ñu ne ko loolu du ñu ànd ak yow ci loolu wut suñu suñu caravane bëri na fi journaliste yoo xam ñoo doon couvrir fii suñu caravane yi ñu doon def kon noonu lañ def ba gagné donc gagné bi du ma ne Pastef moo ko gagné mais coalition Yewwi Wallu ñoom ñoo gagné. kon nañu bàyyi di na bàyyi di wax ne moo gañe fii ndax moom élection locale ndaare la jël ñun ñii gis na sëñ Fallou Mbacke dañ koo jël jox ko conseil départemental bi ba ñu demee ci élection législative gis nga la même chose Pastef dafa Yewwi Askan bi dafa investir ñetti candidat ñetti candidat loolu moo lay won ne kon fii moom Pastef moo fi ne Ousmane Sonko nag na xam ne du moromam du moromam cib njàng saayir ak baatin nag ndax su ñu nee baatin bi mooy usmaan Sonko tey këram am na daara alxuraan wut ay jàngalekat fii lañ dëkk Mbàkke ñuy jàngale ci kër gi di jàngal ay doomam ak waa koñ bi moom Cheikh Abdou Bara Doli doomu soxna la waaye gisuñu benn daara man da gisuma xaw ma benn daara la yor man gisuma ko te président Ousmane Sonko am na loolu beneen bi si des mooy président Ousmane Sonko ndax ko bàyyi ndax ñi muy wax na ay saagakat lañu amuñu benn carte de membre moom ci boppam 2020 wax na kër sëñ Muntaxa ne àndut ak saagakat wax na ko kër sëñ fal bu sëñ Choy bu ñaari kër yëpp wax na ko kon na bàyyi président Ousmane Sonko du moromam moom jamono ji nga xamante ne bëgg na dugg yeewi askan bi ñun ñi mu ñuy sollicité chaque jour nañu na ma président Sonko woo na ma Sonko woo ñun ñi ñoo dox loolu ba président Ousmane Sonko woo ko kon na bàyyi ñëw fii tey di wax naan ay président Ousmane Sonko sama xarit du xaritoowul ak moom ndax du nawleem du ci du ci xam-xam àdduna du ci xam-xam fii ak fële ñu jëm donc kon na ko na ko bàyyi loolu laa amoon li ma doon wax di sant honorable député yii di sant honorable yii ndax li ñu waroon def def nañ ko ci assemblée ba ñëpp seede nañ seen taxawaay ci assemblée nationale kon nag li ma leen di wax mooy fi ngeen fi ngeen nekkoon foofu la moom mi nga xamante ne nag football moo ko ñoroon taxaw fii naan ay commission sport la bokk te bokku fa kon moom na dem topp ci loolu na nekk ci loolu na dem Angleterre kii bi tàmbale na na dem seetaani te bàyyi ñun ak suñu département waaw loolu daal la amul ma jërë jëf